bismillahi rahmaani rahim gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñuy ñaari waajur di nuyu ñi nga xamante ni noonu bokk ci sant famille ak waa adak ñëpp ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar di rafetlu liggéey bi tamit metti woon na tamit mais lépp jaam yàlla moo ci tax a jóg mu nekk li nga xamante nii liggéey bañ ko tàmbalee ren mooy cinquième édition mais édition yi ñu ko doon defee ak ren dafa ute dafa am lu yokk-yokk bu bari bu si am mu nekk li nga xamante ne nii bañ ko commencé dem nañ ci <clears throat> yenn autorités yi nga xam ne ñoom lañ yaakaar dem nañ tamit si kër membre yi nga xamante ne nii ñoom lañ yaakaar ne bu ñu demee dinañ am seen i doom pour mën lañ cee boole ba yàlla def ci xéwal ba ñu am xale yi yëpp waaw métti na nag démarche yeeg yu demee noonu parce que instant di nga yaakaar si lu bëri mais yàlla mooy sottal lépp bañ toll fii tey ñu ngi ciy sant yàlla bu baax waaw di rafetlu ci question boobu parce que ñun ñoo dem ci parent yi kër yëpp wax leen dañuy def lël dañoo bëggoon ku am xale boo xam ne mën nañ koo xarafal ñëw ñu xarafal xarafal la ko laaj ñu la dara noonu lañ ko defee woon ci kër yëpp waaw am na si ñoo xam ne seen parents yi participé nañ am na xam ne participé wuñ parce que dañoo xam ne jamono ji moo toll foofu am na ñoo xam ne am nañ am na ñoo xam ne amuñu ñu boole ñu am ak ñu amul ñëpp ñu téeleen waaw social la waaw médecins yi nag dafa am si koo xamante nii mooy Ada Fane nekk doomu Daaru Xuddos mën nañ ne affaire yi bu bu jàppandee nii moom nañ ne mën nañ ne moom la parce que bañ ko woowee expliqué ko dafa ne bu ñu kenn dërëm moom moo sax moo ñu proposé loolu ñu dem ci kër membre yi doxal loolu mu ñu wax mu jël alalam woo ay xaritam ak ay moromam yëpp ñu jàpp si ñoom fayuñ leen benn dërëm ñëw nañ fi def seen temps bàyyi fi seen dërëm ñun tamit lépp lu ñu mën def nañ ko si parce fere nañ ci ay garab ak yu bëri mais loolu yëpp su amee moom moo ñu ko yombalal muy aada fana ñu ngi ko ciy santaale bu baax di ko gërëm. waaw poste de santé bi <clears throat> ñu ngi nuyu Cheikh Ahmad Tidiane Diop muy suñu chef de quartier ñu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm moom it liggéeyam rafet na trop ak ki ñuy wax Maram Sougou ñoom ñëpp jàpp nañ si liggéey bañ leen ko waxee dañu ñu poste bi seen poste la saal yaa ngi nii jël leen bii ak bii ak bii ngeen def li ngeen bëgg a def instant bii nag su juumul jongal nañ démb ci lu mat ay 45. waaw su ko ëppul nag ci lu ma jàpp mais am na si ay quelques yoo xamante ni dañ bàyyi ñu dem seen kër yi parce que dañoo xaw a sori mais ñi nga xamante ni ñoo dëkk entourage Daaru Xudóos ba Ridis am na ñoo xam ne sax dañ daan jóge ba yeewu mais ren moom am na ñu bëri ñoo xam lu mat ay trente et quelques xale dañ leen téye fii fi la ñu yendoog ñun ba ngoon doog leen yóbbu seen kër yi pour rek ñu mën a gaaw a waaw loolu yëpp ñu ngi ciy sant yàlla parce que dañoo am ay dañoo nekk ay ndaw yoo xamante ni xaaj bi yëpp dañoo ambitieux dañoo bëgg lu ñuy def moo tax mën naa liggéey bi du metti bu ñu xëyee xale bu si nekk buy ñëw day ndékk këram su ñëwee ñun ñoo koy téye suñu dërëm bu ñu amee saa jënd leen ay bonbon ay crème pour rek ñu gën a di firi seen parents yi ñoo leen indi añ mais nekkul ñëpp am na dañuy indi añ am na ñoo xam dañuy añ si añu yeneen xale yi bu ngoon jotee ñu kaf ak ñoom foo ñoom bu ñu la mënee jëndal ay foowukaay ak jus yu nekk pour rek ñuy mën a di xappi après ñu dellu leen seen kër yi suñu xëyee mën nañ jëliwaat. waaw ñu ngi rafetlu tam question boobu baax autorités yi moom ak bon volonté yëpp waxuma Santos Family kese képp ku ñu gis muy def social yi mel nii dañu war a jàppale. parce que ñi koy def ñu si ëpp ñi koy def ñu si ëpp mënuñu dañuy dem rek parce que nekkul lépp lépp xaalis moo koy def ñii dañuy soxla ay ñaan lu si ëpp dañ koy soxla soxla tamit surtout bonne volonté yi nga xam ne dañuy ñëw sax jàpp benn jour yenn sax yi ñëw xool si xale yi sax. loolu nag dafa neex nekk loo xamante ni itam ku si am sa dërëm nga dugal ko si lu mel nii parce que jaam yàlla moo ñu si tax a jóg bu doon xaalis la mën nañ laaj ko ne xaalis te gëm leen dañ ko si am mais jaam yàlla moo ñu tax a jóg ñu lancé message ñoom ñëpp waxuñu ñun kese képp ku ñu gisati muy def lu mel nii bu ñu mën mënee jël seen dërëm ñu jàppale leen ñu jàppale leen si ku bind kartam tam yóbbu la yóbbu ko autorité bëgg nga jàppale ko moo tax boo amee sa juróom fukki dërëm loo am nga dimbalee ko loolu la ñuy lancé message autorité waaw jafe-jafe yi moom mën naa ne méttiwul parce que mbir yàlla moom boo gëmee si boo gëmee li ngay def rek mën naa ne dara du métti buñ la jàppalee yàlla mën na ko sottil buñ la jàppalee yàlla mën na ko sottil luy ñëw sax doo xam fu muy jugee parce que démb rek preuve am na am na ay garab yu ñu jënd yu bëri yoo xamante ne nii nekk fi woon mais bañ commencé lépp mën na waaw lépp mën na mais nag li leen wax rek mooy bu ñu nit ñëwee si ñoom dañ leen mën a jàppale ñu ngi waat tamit lu bari yu nekk suñu kanam ñu ngi sant yàlla bu baax am na ay garab yu ñu war a jënd ak yu bëri yoo xam des na mais daal am nañu yaakaar ni lépp dina sotti incha allah. non association bi moom ci social lay dox ci lépp li nga xamante ne bu ñu ko defee. ñii dañ ci gis seen bopp nekk ci lu baax dinañ sawar trop si. parce que mën naa ñun amuñu ak ñoom réeroo parce que ñun suñuy kilifa si quartier bi lépp lu ñu def te waxul leen ko rek dañoo bàyyi yoon. lépp lu ñu war a bëgg a def dinañ dem ba si imaam li wala imam Cheikh Ahmed Tidiane Diop. ñu toog wax ak moom ci lu ñu bëgg a def mën nañu def leen nii ak nii ñu doog mën a am fitu dem def parce que ñoom ñooy suñuy kilifa si quartier bi waaw ñoom moom alhamdulilah suñu xel dal na ci ñoom parce que lépp lu ñu commencé woon rek wax nañ leen ko waaw di sant tamit autorités yi nga xamante ni jàpp na ci programme bi ñëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm parce que gis nañ yéene yeeg yu bari di sant suñu benn grand tamit jaru ñuy wax turam parce que bañ fa demee dafa ne dinaa jàpp mais sama tur dimbali ma bu ko wax waaw ah, ñu ngi koy sant moo tam bu baax a baax waaw ah, di sant ñëpp ñu si jàpp waaw ah, maire gox bi tamit monsieur le ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm moom jàpp na ci waaw ñoom dañ fa dem kur la kur mu jàpp si ñu ngi koy sant baax moom di ko gërëm di ko ñaan yàlla sàmm ko yokk ko wér